doo yaay ji bu grève de la faim moom moo ko teg boppam yaakaar naa ñooñu waruñoo wax lu ni mel même bu fekkee dañoo may waruñoo dëfal xale bi te xam ne ndaw la. waaw parce que ndey nu muy mënta mel rek ndey la. Mm-hmm. dañuy wax ci saa su nekk fi ko lislaam teg ndey boo ko amoon sax muy naan di màndi di tërëf sax danga koy jël boot ko raxas ba mu set mm-hmm. te bu bëggoon sàngara sax dagan na nga dem jël nga dem mm-hmm. jënd ko ñëw indi ko. waaye nu muy mënta doon. dañuy xam ne ne kii yaayam la waaye nabulee dafa def lu rëy. Mm-hmm. dafa def lu rëy. Mm-hmm. yaay nag yaay la. Mm-hmm. nu muy mënta doon tamit tey bu demoon tey ba dañoo àtte yaayam. moom xale boobu ñu xam ne ne yaayam laale na ci mbir mi wala laale na ci bi nu muy mënta doon tamit yaayam. yaayam lay doon yaayam lay doon mooy li may wax chaque jour mën a ñaaw gën dee. tey Aziz Dabala mii nga xam ne tëdd fee ci àllaaxira yaayam ak yaayu waa kër ñoom waali donte yaayam dundul. tey bu ñu jotoon ci lii ñaaw gën dee kaso. Mm. ñu ne tey Aziz a ngi kaso. wala tey ñu ne waalee ngi kaso kon mm. yaakaar naa ne moo leen di gënal fuuf. Mm. moom grève de la faim te nee nañu Nabou Leye bi ñu koy entendre ba sonn daan toog te waxul. mais lan moo ko teree mën a wax na wax. Mm-hmm. na wax lu leer wax lu ko génne wala mu wax lu ko déchargé. Ah, wax lu mu bu dee wax lu mu xam. bu dee bu dee mbir bi noonu la demee. waaye bu ñu fàttee ne double meurtre la. ñaari bakkan ñoo rot. ñaari bakkan yooyu rot nag. kilifa la ñu bàyyi ak seeni waajur. xam nga mm. Nabou bu toogee ba def grève de la faim ñaata ñaata nit la bàyyi foofu ñu tëdd. Mm-hmm. ñaata nit ñoo fa def dix ans. Mm-hmm. ñaata nit ñoo fa def cinq ans. ñaata nit ñoo fa dem ay atti at ci biir kaso ba tëdd. Mm-hmm. te yow bër ki démboo Njaay mën naa la sax ñaari weer defagoo fa nga toog naan da ngay def grève de la faim. grève de la faim ba pour lan la. Nabou Leye dama naan moo fa bàyyi boppam wala yoon moo ko fa bàyyi. ndax wax la ak tontu. bi yëf yi amee dañoo laaj bi affaire bi di am heure bi muy am fan nga nekkoon dégg naa ci ay version ñu ne dafa ne daroon nelaw beneen bi mu ne mu ne nangam la nekkoon. mu ne téléphone am mi ngi doon borné ci côté yooyu. Mhm. ba pare ak fa mu wàccee Aziz ak mbir mi nu mu demee ak sur les li nga xam ne moom la Papa naa pour expliquer. Mhm. bi mu ñëwee ba ñu ubbee bunt bi bu ah, mu dugg romb ay deret romb ay sang yooyu yëpp te tiitu rafet ci koo xam ne yow da toog ñaar fan gisoo ko. te mu sës ci yow rek. nañ waxante dëgg. kon bu toogee tey bay jooy di def grève de la waa doomam doom la doom bu ne doom la. dëgg la tey boo fekkoon sa yaay ci lu bon sax da nga koy sang ba mu set suturaal. Mm-hmm. mais Nabou Leye yaakaar naa ku yoon woo. ñe benn yoon ñaar yoon ñett yoon bala nga dem nee naa la police bu la ba xam nga lim ko gën a xam. moo la ko a xam. du yegg sur les faits dafay mel comme scénario buñ la tegal tey ñu ne la demal ci biir ci ci biir boutique ba nga dem jënd fa ceeb ñu bindal la scénario boo ñëwee da nga laajte da nga la da nga laajte ceeb ceeb bu parfumé. danga laaj ceebu nangam door cee ñëw tourner autour du pot. Mm-hmm. kon li nga xam ne tey ji polis laaj takku ko moo ko gën a xam. Mm-hmm. dégg na lay du Aziz kase la xamoon ah. Mm-hmm. Aziz du Nabou Leye kese la xamoon mais lan moo tax Aziz ñu rey ko ñu woo Nabou Leye téye ko ñu woowaat ñeneen entendre leen badale eh lu rey mbuum dee tax. Nabou euh, euh, euh, Nabou mii du yoro waaye jëppal yéen de. du yoro waaye ca yi la doom ji nag doomam la bu ko neexee bu jooy. Mm. grève de la faim nan lañ koy def nit ñi di la yërëm ñoo xam ne dañu la laal dañoo leer ne yow laale ci. Mm. wala taqe ci. kon nag mbir mi bu demee nii lu ñu bëgg. Mm. mooy ne justice taxaw lu gën a leeral bu dee nagu laalew ci. wala takku nañu taxaw ñu leeral desaati ji nga xam ne ñoom ñoo ca nekk. <coughs> waaye bu dee nagu da cee laale takk ci na génn wax. Mm-hmm. li ñuy wax chaque fois nee nañ waxul. buñ ko laajee du nangoo wax wala wala buñ ko laajee nangama nangam hmm. nañu wax hmm. kon yaakaar naa ne bu ñu waxee ba décharger lépp li nga xam ne moom moo ci war a nekk kon na bu day libre euh, comme un oiseau hmm. mais comme que nag da cee laale takk ci grève de la faim te bu koo bañ a def ah, nga grève de la faim boo ko defee tey ay feebar la lu fii mën a jëngi la la jël kaso ne la ko ràpp tëj ko génneew lu fa de ay caaxaan lu muy mënta demee ba nga dugg ci ay loxo procureur du ay caaxaan. Mhm. nabu bu dee dafa am lu mu xam na ko génn wax. Mhm. bu dee da cee laale wala mu takk ci na génn desaat ca boppam desaat li nga xam ne mooy askanam. Mhm. parce que benn doom bu jigéen la am. te am na loo xam ne xajul ci nit. xajul ci xale naqar boobu te Aziz bàyyiwu fi doom waaye te bàyyi na fi ndey bàyyi na fi bàyyi bàyyi na fi ay sœur yoo xam ne. tey biddiw la woon ci biir famille ñoom ci moom lañ yaakaar. Mm-hmm. situation bi ñu doon dund tey lépp loo xam ne lu ñu mënoon a am soo ba ngoon jot ci Aziz lañ ko yaakaar. Mm-hmm. waaye nga fekk yaakaaru famille. nga tas nga ne ko nga ne ko tëppit tas. Mm-hmm. nga toog jàpp sa ñaam ndax lan am na tamit yeneen yu gën naan ñu naan ay la am na keneen ku tudd laay anaana sax. ñu naan ñoo daan yóbbu fekkkat yi. dafa am ay ay ay règlement de compte yu nekk seen diggante. Mhm. lu nekk ñu ngi ko ci wax. Mhm. mais man lu ma ci mën a wax ba mën ko ci wax. Mhm. lépp loo xam ne la justice. parce que booba tey nag yëf yi fii ngi gën a dem. wax ci chaque jour nga dégg ci ay version yu bees. chaque jour nga dégg ci ay wax yu bees. lu ñu bëgg mooy justice na ci gaaw. leeral ko parce que double meurtre ak li ci jot a am bu dee dafa am ñeneen ak ñeneen wala Aziz ñu mu yoral xaalis ñu taxaw wala ñu yoral Aziz xaalis ko nee ci affaire natt. mi ngi ci. nee nañ ci affaire xaalis mi ngi ci. Mm. jalousie mi ngi ci règlement de compte li ciy mënta am. Mm-hmm. suspect yi nga xam ne moom la police jot a commencé na nañu mën a taxaw doxal mbir mi ba mu gën a leer ñu teg lépp lu mu gën a leeree. Mm-hmm. ndax nabu bu dee dafay def li nga xam ne mooy grève de la na xool kenn Ndella Madior mi ko fa jiitu. Mm-hmm. Ndella Madior bi ko fa jiitu ak ñeneen ñu fa def 10 ans wala 15 ans ci chambre 5 boobu mu nekk. am na fi ñoo xam ne ci affaire meurtre lañ leen kii. foofu lañ mm. ko teg. Mm. kon na xoolaat moom lu muy décharger boppam day wax mu leeral nit ñi décharger boppam mën a tëdd. Mm. mu wax loo xam ne tey jii askan bi mën nañ ko dégg justice mën na ko dégg bu laalee ñu mën ko libérer ñu mën koo libérer. Mm-hmm. waaye yaakaar naa ne bu ñu defee ay sélection ñaata nit la ñu woo ñu woo la benn yoon bàyyi la nga dem woo la deuxième fois woo la une troisième fois ñu téye la kon dama yaakaar ne ah. bu dee set nga ci tamit de dina mhm. dina doy waar dana doy waar la koy setal de dina métti comme ni ko ñeneen ñi di waxee en tout cas situation bi noonu la daal di demee maam waalu grève de la faim bi nga xamante ni euh, moom daal dina koy amal sa kaso ba ñu xamlee ko nag euh, ñu xamee ko fa nga xamante ni rek moom mooy euh, doomam bu jigéen Euh, bi nga xamante ne princesse Zeyna la tuddee boppam ci TikTok bi euh, Bathie Seras di waajuram bu góor ba tax na sax euh, boobu lay xibaar ñu ngi xamal ne ba mu defee vidéo sax après ñu ci bëri dañoo dem seen TikTok def benn ab vidéo TikTok groupe boo xamante ni kii day wax sa problème si si si si sa xalaat ci cas bi ba sax Bathie Seras il paraît que moom moo wax kër ngir rek mu daal di dagg li nga xamante ne mooy live TikTok bu mu def ndax ay saaga ak ay ŋàññ ak ay xas yi nga xamante moom en ngi ko doon subir si TikTok bi si message yi mu doon loo xamante ne lu métti la mu ngi koy dund dëggantaan jaay waaye nag lépp loo xamante ne yoon moom moo ko yor moom yaakaar naa ne mënu koo lijjanti tamit mënu libérer li nga xamante moom mooy yaayam. waaw maane euh, loolu xale boo ko boo amee sa doom danga koy def éducation bu baax. Mm-hmm. parce am na yenn jënd ñaxtu yoo xamante ni ruy gàcce naan la. Mm-hmm. pa yàlla. Mm-hmm. boo ruyee gàcce naan. doo xool li ngay def ak loolu def. Mhm. parce que tey jii moom moom moom juma mën naa jéem di jooyal yaayam mais tey yaayu as dabala mais nekk mag nekk mag lool moom fan lay juree ci doom bi mel ni as dabala. fan lay ameeti as dabalaa yaayu waale jee sangoo suuf rakki waale yi fi ya waal waale bàyyil ay rakam. fan la ñuy jëlee ci mag bu leen téye ci àddina. kon bu problème amee te problème bi dafa nekk problème boo xamante nekkul problème bu rafet. mujjee na ñu ne ko defoo dara rafetut. Mhm. mujjee na ñu ne ko yaa def rafetut. deram mhm. xas naa yàqu ba pare ba pare lu ko setal du yomb. lu ko setal du yomb. Mhm. kon kooku man su ma amee sama doom nekkatut ak yaayam na ko maamam contrôlé wala papaam contrôlé ko wala ay mbokkam contrôlé xale bi. parce que Nabou Leye kañ la dugg ci kaso bi ak kañ la ci la la mën a def ay gërëf defee kañ la dugg ci kaso bi ba doomam mën a jigo génn naan day def day jooyal yaayam. <coughs> loolu pour la ci coow li sax la ñu bëri xamee. doom parce que coow li fayagut. Mhm. coow lii du mas a fay nee naa deewu deewu kii bi as dawla bi mooy nangu deewu nangu loo nangu kenn rey ko yàlla moo ko rey. Mhm. ci lu yàlla daa feebar entere mhm. sunu borom yàlla jël ko. mais saa yu nu xëyee xel day nekk ci moom ndax lu mu def ci réew mi. dëgg la as def ci réew mi du rafet ba tax saa fi